moo fi amoon diggante deux mille vingt et un jàpp deux mille vingt bi dafa def gëstu gëstu gu mu def moo di ndekete yoo ngànnaay yi nga xam ne moo dikk fii ci réewum Sénégal doon defanteex manifestant yi. ya ñu utilisé woon. waa France si boppam ñoo ñu ko càq-càq. Eh? ñoo ñu ko livré càq-càq dafa xew ci réew mi. dañ toppet yoon. nekk wax ma la pay rek waaye. <laughs> waa France ñooñu ñu càq li nga xam ne moom mooy. arme yi nga xam ne moom lañoo ñoo utiliser ci manifestation yi ngir nag mate manifestant yi yéene bi dikk na ci nan la ñu def ba arme de guerre yooyu la ñu ko tuddee du ay arme yu ndaw de du ngànnaay yu ndaw de déedéet nan la ñu def ba mu dikk fii ci réewum Sénégal ñetti xeetu grenade lacrymogène moo am am na si boo xam ne nii bu la duggee <laughs> am na ci grenade lacrymogène boo xam ne bu la duggee di nga toog une semaine boo xam ne moom waxuma laa boreeku sa jabar du kontaan da ngay tële. ay. ah kay dañ ma ko wax. non bii bu jag bu wóor la. bu moo ko wax nee na am na si boo xam ne bu la duggee moom bee boo rek nga xam ne demal hôpital nga tëdd. te xam ne kër ga doo fa am njariñ. ñetti type de grenade lacrymogène yu nga xam ne nemmeeku nañu leen ci defar gi. fournisseur ba yéenekaay bi dikk na ci. ci anam nga nga xam ne ngànnaay yi fii fi du géttee lépp na ndekete yoo. mais bii bu mag bi waa France la c'est une exclusivité. yéenekaay bi moo e gëstu bu mag. Hmm, gëstu la gëstu bu mag. Hmm. exclusivité bi du lenn lu dul. toute la vérité ba nga xam ne koo am invité. parti démocratique sénégalais ah émission bu mag bi. waa PDS présidentielle 2024 bii. yaa ngi fëgg ci non waa ji li mu wax ci toute la vérité. émission bu mag bi. Hmm. non Fabrice denc suspense bi. denc ko. njaag bu ndaw. waaw ndekete. ndekete la point de suspension. ma bàyyi. waaw ma bañ a wax. dikk dikkul ndekete eh, eh, njaag. ndekete njaag. sañul doon présidentielle deux mille vingt quatre ndekete njaag. dikk na. point de suspension. vingt quatre Ousmane Senk Ousmane Sonko. Senko. Senko laa ko doon wax Ousmane Sonko nee na. présidentielle deux vingt quatre bu bokkul. la jaaykat ba di wax Sénégal lay dugg ba mu ëpp naa def. Sénégal laay dëbb ba mu mokk. Sénégal ko. kaw laa koy yóbbu laa la wax nii. ëpp naa def nee fii kenn du ko fi tëgg. te moom Ousmane Sonko bokkul moo wax ne démb ci France 24 président Macky Sall nag nee na wax fa dëgg neex yàlla fi ñu toll nii jàmm la ñu woote ñun. jàmm la ñu woote ngir investisseurs yi mën a dikk fii ci réewum Sénégal. investi dugal seen xaalis Sénégal suqaleku ba faw. Hmm? parce que na ñoo ngi ci yoonu suqaleku nee na. démb la ko xam ne ci ouverture forum invest in Sénégal investir au Sénégal moo ko wax jamono joojee it jàppale ne kon président conseil départemental bu Tambacounda ak maire ci boppam dañoo daje nee nañ président Macky Sall doxalal yow tànneef boo def ñun moom la ñu tànn loo wax loolu la te ñu ngi rafetlu dogal bi nga jël ngir bañ a bokk ci li nga xam ne moom moo di ci élection yi ñu ngi koy rafetlu wàllum investissement boobee investissement en Afrique président Macky Sall nee na waxtaan suñu biir rek diggante réewu Afrique yi. Mm. jokkalante gi faw mu am partenariat bi faw mu am b 2 lañuy la ñuy wax wala PPP partenariat public privé nee nañu loolee nag wax fa dëgg neex yàlla faw mu am ngir réewu Afrique yi suqaleku te nag moom président Macky Sall sa ndaje moomee nee na bés ma paree ci réew bii. Sénégal rek. bu ñu foog ne damay gàddaay de. dawuma taxuma ci Sénégal gi laay toog. xanaa wax ji dafa am borom. moom mu en wax na de. wala ay yóbbante galgal la xaw ma. wala ay borom. nee na ci Sénégal gii lay toog maax sama njaboot ci Sénégal ci Afrique gii lay toog puusuma randuma paasuma ku may seet boobaa di nga xam fi nga may fekk fii ci Sénégal ñu yaakaar ne kon damay pare rek daaw. am na lu mu si dolli. mu ne la je peux accompagner mon successeur s'il le décide waaw bu ko neexee. mu gunge ko ah, wax war a toog ëllëg. wax feeñ. seetkat bi lu mu wax. Ah. nee na ku xonq mooy jiite réew kon candidat yi ñuul yëpp dem leen toog. ku xonq te amul te amul sursil. ku xonq ku gàtt gi. waaw wala bu ñool bi la bu bees bi. nee na daal mooy jiite ku xonq. ma dama ragal yenn candidat yi tam ñu diwu ji. ba te ay Zahir waa. comme que waa waa seetkat bi nee na candidat bu xonq bi mooy jiite réew. kon ñu des daal duñ diwu ji. <laughs> pour mën a xonq bokk am chance. démb <laughs> saltige Cheikh Ndiaye di démb wax nañ mu ne ma man maa lay wax kii jiite réew te gis naa ko te lu ma wax sama baaraam da ci teg. mais nee nga seet des fois ñu ne la ku kii dafa xees parce que xol bi moo set. peut-être ku borom xol bu set lay wax xëj na nag xol bu xees la. ah xol bu xees xol bu nekk nii mu ngay drague nee na leen ñëw leen ah. réew mi jàmm maa ngi fi. ñëw leen investir fii ci réewum Sénégal gestion de l'état et politique Macky la situation inédite et les neuf mois d'épreuve ndax nag li ko fi dese bareetul juróom-ñeenti weer bu baree ba bari juróom bu gàttee ba gàtt juróom-ñeenti weer jamono joojee waa parti socialiste ci biir Benno Bokk Yaakaar ne nañu puusuñu paasuñu randuñu ñoo ngi ba tey ci biir Benno Bokk Yaakaar te président Macky Sall lu mu wax rek loolu la euh, ñoom loolu la ñu wax Moustapha Diop nee na candidat la de Moustapha Diop am na ci droit bu ko neexee ministre de l'industrie le am na ci droit la am na ci droit bu ko neexee. Mm, Ousmane Sonko le leader de Pastef nee na moom it candidat la. le ko wax la keneen koo xam ne nee na candidat la te bi mooy Ousmane Sonko. Yacine bu la neexee nga samp sa dënn. bu ko neexee ne candidat la boo sampee sa dënn nit ñi dana bari Yacine. campagne bu rëy ngay pas d' élection si je ne suis pas candidat moo ko wax. moo ko wax de. Vox Populi ñëw. parti socialiste ñoom ña ngay confirmer ba noppi di assumer seen ancrage si biir euh, Benno Bokk Yaakaar nay leer nee nañ ñun ak yow ba deux mille trente cinq rek. waaw Macky évoque sa vie d'après présidence mi ngoog nee na ban bu élection yi jeexee léegi ngay jóge samay loxo bu yóbboo ngeen xam ni fii laay def si réew mi te bu paree it ma ndax moom. keneen ku wax ne candidat la mooy professeur Daouda Ndiaye candidat la de ci présidentielle yi waaw candidat la moom it Sonko ba tey dellul ginnaaw de. nee na élection du am ci réew mi tànk ma bokk ma de ko quotidien daan na siy dikk président Macky Sall gannaaw élection yi F24 nag nee nañu ay élection la ñu bëgg ñu tëgg ko fii ci réew mi yoo xam ne daanaka ku nekk da ciy bokk képp ku mën ne nekk candidat da ciy bokk. inclusive. inclusive na ci ku nekk bokk nañ ko ubbi bu ñu jéem a éliminer kenn waaye F24 démb lool lañu wax. waaw yi simili. Macky en élection libre benn simili ay ngeen jëm. forum invest in in Sénégal wàllum investissement bi lañ doon euh, euh, wax naa ne yéen kaay bi nee na avantage d'ancien chef d'état am nay avantage ndekete de ndekete daal nekk chef d'état daal gongo rek ngay dégg. waaw waaw. gongo ngay dégg daanaka yow daal moom tu es peinard après le point décision bi nga xam ne président Macky Sall daal dina koy jël ñoom waa QGM ñu ngay rafetlu tàccu nañu. QGM laa wax de waxuma beneen inversé wu ma ko. QGM nee ñu ngi koy rafetlu. te nee nañ nag nañu ñëpp joxante loxo te le président Macky Sall wax rek nañ ci jàpp laas quotidien daal di siy ñëw président Macky Sall nee na fii laay def si réew mi ma paree ci réew mi waaye jàpp ne ko ñaari cas yi Khalifa Sall ak ki nga xam ne moo di us euh, euh, ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade yéene kaay bi di laas def nag taxaw seetlu ci ñoom les clairons de déverrouillage des deux cas assemblée nationale la ñu ko yóbbu situation sécuritaire demeure préoccupante fii ci réewum Sénégal maître Sidiki Kaba moo koo xam ne ci réewu Afrique yi sax lay wax réewu dendandoo yi nee na djihadisme yi nga xam ne ñu ngi dicté seen i loi ci yenn euh, réewu dendandoo yi nee na loolee benn réponse teg la ci am mooy par les armes nga dugg ci gi moo ko wax dëkk doore fayoo koy tas am na ñoo xam ne da ngay defanteex ñoom ñoo xam ne da ngay defanteex ñoom kii ojaa ngi noonu ojaa ngi noonu ci le mandat nee nañ président Macky Sall yaa ngi woote jàmm détenu politique bàyyi leen ñu génne kaa Ousmane Sonko mii faaw nga wax ci te dindi barrière yi wër ndomb gi loolee ci boppam na dañ élection yi na si ñëpp bokk loolu la ñu bëgg. alors. ana Oja. demaatal si bi la woote. salle d'attente bu nga xam ne nii salle télé bu mag baa ngi fi écran plat. Hmm. ka ciy wax du kenn ku dul Ousmane Sonko ma nga xam ne ma doon jàkkaarloo waa euh, mais lii FF lii F24 la wala waa F24 wala Ousmane Sonko la. ah France 24 la kon au lieu de f donc France 24. Ousmane Sonko def déclaration. très fort. jàkkaarloo Khalifa Sall Karim Meïssa Wade moom Ousmane Sonko bi nga naa leen yéen ñaan ñi maa ngi leen di gis de maa ngi jàkkaarloo yéen. et la température de la clim à 4. salle de campagne bi gaa yaa ngi moom mi ngi kaas kon tàng na de wala. non non mhm. sedd na guy guy guy. si saal bi. saal bi kon sedd na guy ñoom ils sont dans une guy. ñoom ñu ngi salle d'attente pour génn ak dem assemblée nationale seen dossier ñu daal di. coupé bi pare que dañ ko coupé courant. télé bi dañ coupé courant. aywa waaye terewul mi ngi wax de. moom moom Ousmane. moom Ousmane ana lu gën a fës ci xibaar yi. la ca gën a fës moo di réewu dendandoo yi jihadisme bi nga xam ne ñu ngi fiy dicté seen i loi ñàkkum kaaraange gi euh, moom jëwriñ bi dénk wàllum l'armée fii ci réewum Sénégal nee na defanteex ñooñi dafa mel ni lu war la te ngànnaay rek mooy nekk saafara gi maître Sidiki Kaba kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati bi ñu doon jëmmaal fukki nga xam ne démb la ñu ko doon jëmmaal démb ci alxames ji ba tey la ñu ubbi ndajam forum investi euh, invest in Sénégal daanaka nag moom njiitu réew président Macky Sall moo ca teewoon mu ngay xam faw jàmm daal di am ci réew mi bu ñu bëggee nag investir investisseurs yi man fee dikk président Macky Sall nee nag dina yombal euh, euh, procédure administrative yi euh, ngir nag mën a faciliter Euh, investissement bi fii ci réewum euh, Sénégal wàllu politique daañ ko waxtaanee ak waa F24 ba nga xam ne euh, jël nañu dogal te ña ngay rafetlu na nga xam ne moom la président Macky Sall doxalee daanaka ngir bañ a bokk ci élection présidentielle yi ñu dëgmal seen mobilisation bi nag nee du dakk ndax seen bëgg-bëgg moo di présidentielle daanaka ñëpp bokk opération de déguerpissement ba nga xam ne sumb nañu ko sa cité Daaru Salaam ak nag sa pegg ba te ñu féete zone de captage it jàppale ne kon fu mu nekk ni askan wa nga xam ne ñoo ko occupé woon seeni bët rek la ñu am ngir nag euh, maanaam jooy seen jàmbat gi nga xam ne ñu ngi koy dund ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy daj jamono ji ak yëkkati googee nga xam ne daanaka nee na kenn tàggu leen la ñu bëgg sax moo di ñu may leen la nga xam ne am nañ ko fa ni ay jumtukaay rek ñu jël ko laata ñu leen fay dàqe noo ne daan jeexale bi la jotaay xibaar li yéen i kaay xëy fasal xamantulaay ci bundoy faram fàcce gi ñu ànd a Seex Mamadou Fofana Voici Trafic News. Ababacar naa la. bu baax. fan nga toll jamono ji. ci national bi bu fekkee aussi à hauteur de l'échange de Cambérène foofu les files de voiture bu bàyyi ko du côté de Technopole dafay progressé au ralenti station.